ce ne sera jamais un royaume du Sénégal c'est le Sénégal c'est un pays indépendant ñoo ko moom de toute façon nous Sénégalais on est libre et on va rester libre on le répète et on le redit nous disons non on est là à dire nous disons non on est là à dire nous disons non à la peur qui fait fuir on en a assez en tant que jeunes et nous sommes prêts moi je le dis haut et fort je m'appelle Mamadou Diop Je suis étudiant à l'ICAD, donc nous sommes prêts au sacrifice. ñu jàpp nit ñi. waaw yóbboo ñu toj leen. waaw ñu roy leen. alliance pour la république di proposer mooy tous ensemble devant le palais de la république pour dire Ablaye Wade ci biti. leen duma di leen door ay lacrymogène ah di fa arme blanche loolu na arrêté président Macky Sall bu jotee ci réew mi loolu dootu am. defee nag fukki at ak ñaar ci boppu Sénégal tey jii maître Abdoulaye Wade jóge na palais de la République ay ndaw taxaw doon ko yuuxoo Macky Sall moom dal na ba pare ci biir palais de la République fi mu toll moom mooy njiitu kullu sénégalais. Alors, le président Wade qui prie pour Macky Sall yal na la yàlla jàppale c'est ce qu'on a entendu. ah il faut féliciter Abdoulaye Wade d'avoir posé cet acte de grandeur qui a consisté à reconnaître la victoire de Macky à l'issue de ce deuxième tour. Je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Monsieur Moussa Bagnas est élu président de l'Assemblée nationale. joxoon ci ndigal ma jàpp ko mooy naa am yërmande ci néew si doole yi. boo leen yërëmee dimbali leen rek am ko ko ndax suñu kilifa gu baax ga sëriñ Abdou Lahad dafa waxoon président ba mu fi nekkaloon ne ko bu fekkee awma kàttanu ne yàlla defal mu def wala bàyyeel mu bàyyi danaa am fulla yi nag képp koo xam ne yaa ngi yërëm nit ñi may jëf ak yow di wax ak yow. sëriñ bi itam foofu rek la ne. ëtt bi war àttee képp koo xam ni sa alal dañu gàññi te xamuñ fu ñu ko jëlee euh, ëtt boobu nag taxaw na ba kilifa gi ko ŋànk doon janoo ak taskatu xibaar yi la mu xamle nag mooy euh, fileek fan yu néew di ngeen dégg ay turi kilifa yu ñu fas yéene déglu gendarmerie moo leen war a may nopp euh, bokk na ca Karim Meïssa Wade Oumar Sarr Abdoulaye Baldé Tahibou Ndiaye Madické Niang Samuel Sarr Doudou Diagne Karim Wade nag moom bisu fukki fan ak juróom ci weeru novembre moom mooy njëkk a ak ñi di gendarme yi bu ca weesoo nag ñeneen ñi ci tudd ñëpp kenn ku ci nekk àttekat yi dina la may nopp. on ak Cheikh Faye tëj nañ leen fukki at te travaux forcés. juróom benn ati kaso ngir Karim Wade ak ndàmpaay ci wàllu koppar yu am solo. Khalifa Sall est condamné à cinq ans de prison ferme. Senabré, la chambre condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité. Barthélémy Diaz a été condamné à six mois d'emprisonnement ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Idrissa Seck euh, par la police. à l'instant nag mu ci biir auto police bi. jàpp nañ itam ñeneen. responsable opposition bi mhm. Malick Gakou ak Thierno Bokoum sax ni ni ko Babacar waxee liberté on Écoutez, ne me poussez pas, je considère que c'est un fait... Que non, écoutez, écoutez, ne me violentez pas. Non. Là, c'est quelle affaire Vous me laissez, laissez-moi prendre. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Mais cette dispersion est illégale, puisque vous savez que eh, la marche est, un droit sacré par notre constitution. malheureusement, nous avons au Sénégal maintenant une dictature qui ne dit son nom. Mais nous allons nous battre pour libérer notre pays. rey leen ma wax naa leen lorsqu'un chef d'État, pour des raisons politiques, fait s'abriter son parti derrière le parquet, donc derrière les services de l'État pour poursuivre un adversaire politique, alors là, c'est grave. Il y a une dérive, il extrêmement grave. Il les maires, les députés s'il veut, l'élite quoi. Il est dans l'achat des élites euh, médiatiques, euh, maraboutiques, euh, syndicales, fonctionnaires, etc. Mais le peuple, lui, sait où est son intérêt. Avec tout ce que le, le peuple a fait, lors du 23 juin avec Ablaye Wade aujourd'hui voilà ce qu'il a rendu au peuple sénégalais il nous a déçus c'est une honte pour quelqu'un qui est né après les indépendances cette fois-ci il faut qu'ils sachent qu'ils ont touché le sommet fi ñu yegg dafa sori te duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg bi ñuy ñëw dañoo dénkaane suñuy bopp xam ne dañu pare c'est pas pour rien ñu tuddee suñu bopp les linguères de Pastef talaatay ndeer tey jii la ñuy wane ni nag war nañ koo mën a dekkalaat di Sénégal dinañ ko delloowaat ca fa mu nekkoon buumu jaam bi ñu Macky bëgg takk di ñu diri fu ñu neex fu mu ko neexee dina ko tekki wala moom mooy jóg abal ñu parce que nag dañ ko dénk rek ni ko yoral ñu. Euh, Macky Sall xeex bii muy xeex na xam kañ lay tàmbali mais bu mu xam kañ lay jeex. te bu mu xam tamit lan la ko mën a coûter. Mm-hmm. parce que mi ngi fooyee loo xam ne moom ci boppam xamu ko Macky Sall mi ngi foowee nit te yàlla dafa fonk nit ngir jëmmi rasulullah di am gàcce lool tey ak naqas ci lii ma gis mu xew ci réew mi te dara du ci dëgg teguñu ko fenn lu dul ci bëgg a faagaagal nit benn bu jëkk bi ma adressé ko directement président de la république monsieur Macky ma bëgg mu delloo ci xelam xam ni ba ñu koy fal bu ñu xamoon ni fii lay mujjeeg réew mi duñu ko fi teg ma bëgg mu delloo ci xelam te xam ni lépp ay jeex amoon yaakaar ci moom ndax ñi ko fi jiitu woon ñëpp ku ci nekk def nga fi dara ba dem waaye ay mag la ñu woon ñu jàppoon ni comme ndaw la luy door a yegg juddu après l'indépendance dina yóbbu Sénégal fu ñëpp ne eskay malheureusement tel n'est pas président delloo sil sa xel danga seet sa entourage yi fi xew bari na te nguuru yàlla rek a dul jeex bis dina ñëw di nga fi génn nit ci di wala ci nale li xew nag ñu ne ku ci wax ñu rëq sa ndigg wala ñu jële la fi mooy troisième mandat yow yaa taxawoon ci devant devant le peuple sénégalais adduna yëpp di la dégg nga waat ni bii ngay jeexale réew mi kenn mënatu fi toog lu ëpp ñaari mandat dañ ko bind mu leer nañ nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs xanaa kay ku jàng tubaab boo ko firilee loolu war na xam ne indépendamment euh, référendum loi 2016 wala loi 91 dañu ne mandat bi juróomi at la benn yoon lañ ko mën a renouveler muy donc boo ko renouveler muy ñaari mandat ñu yokkaat ci leneen lu koy tëj ne de tout façon kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegale donc loolu la constitution bi wax donc loolu lu leer na man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee deux mille dix-neuf lay jeex ci coobare suñu borom ak bëgg-bëgg Sénégalais yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen kóolute dina renouvelle mandat boobu deux mille dix-neuf su boobaa man pare naa ci. ñu dem ba ci biir feebaru mbuur dugg la gis nañu la xew ci suñu voisin yi duma tudd tur di tooñ bu fekkee ni loola moo la ambitionné ba tax nga jàpp ni foofu ak fii ñoo yem yàgg ci erreur monumentale delloo sil sa xel ñun ànduñoo ak yow ci lii léegi sax réew mi àgg nañu ci sëriñ su waxati sax ñu ni dañu noppi torop waaye dafa ci am ñoo xam ne ay suñu kilifa la ñu mag la ñu wax nañu ba sonn. Mm-hmm. te mag nag ku ko yëgul mu yëg boppam. Mm-hmm. teg loxoom ci dënnam ni mën a diw. looloo tax ñoom dañ leen di ñaanal yàlla ñu yàgg fi. waaye ñu nag yow nag. dootuñu noppeeti incha allahu taala. Mm-hmm. ci kattanu yàlla ak baaxam. jërëjëf façon bu ne ñu ngi koy jéem. malheureusement dégguloo ñu lii xew nag li ma ciy indi man li ma ci gën a metti du sax affaire Sonko dëgg la metti na. ak li ñu ko teg ak li ñu ko wax. te li ma jot a dégg yëpp ci média bi dégg ko ci ay nit dégg déglu ko ci ay sources yoo xam ni wóor na ma ni ñii lu ñuy wax xam nañu ci lu leer lépp dañ ko comploté de A à waaye nag olof Ndiaye nee na kuy gasal sa noon pax bu mu xóot ndax ëllëg ay tax mën nga ca dugg. Mm. fii lu ne xew na fi. Mm-hmm. yàlla ni patt rek di seetaan. ñu jàpp ni dafa fàtte déedéet dafa dënniir lu rek président delloo sil sa xel président delloo sil sa xel da nga seetaat sa entourage loolu benn la bi ci des ma jëmale ko ci ndaw yi réew mi nga xam ni ñu ngi assemblée nationale ñu teg leen fa askan bi teg leen fa am ci ñoo xamante ni bi dara ñorul leen ludul lépp luy kontaan loo président rek ñu nga ca suba ngoon guddeeg bëccëg te bu leen fàtte ni deretu nit ñi lañ leen di faye ngeen koy lekk te bu ngeen ci lekk billaahi wa kitaabihi ëllëg a gi ñëw bu ngeen duggee bin baan bàmmeel dinañ la dinañ leen ko laaj summa la tusalunna yawma idin anin naay alquran la yéen nag gëmatu leen yàlla ñu si bare bare bokk hmm. wala bu ñu ko gëmee yaakaar na ni loolu yëpp ay caaxaan la hmm. sama mag Moustapha Niass moo nekk président assemblée nationale hmm. depuis le temps mi ngi ci ci ay pouvoir depuis le temps Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade ba Macky Sall ñëw ma bëggoon moom itam lépp lu ñu fa indi di ko woote en tant mag mu fekkee lu bare te yàlla defal ko teraanga lépp lu ko wóor ni lii ay complot la mu bañ caa dugg te des yàlla hmm. te xam ni yàlla ñëpp la fi nekkal beneen bi ci topp muy ñi nga xam ni ñoom la wax ni ñoo yore affaire justice boo ko dee seet bu ñu waxee dëgg bu ñu waxul dëgg dafa mel na ñaari Sénégal a fi am. Mm-hmm. et c'est vérité. kii nga xam ni tey jii mooy procureur sama benn wax rek laa koy fàttali mu bàyyi ci xel ak képp koo xam ni dale ko ca ministre de la justice ak ñi topp ci seen gannaaw yonent bi dafa waxoon bu yàgg ni attekat yëpp ñett rek lañu ñaar ñett safara la ñu jëm rikkuwaay na ngeen bàyyi wax jooju. xel te xam ni yàlla du waxantu ndax nit am dëggam ngeen ëpp ko doole ba dëgg ci loolu fexe ba néewal ko doole dugal ko ci kaso yaakaar ni rëcc ngeen xamu leen li xaw kon delloo si leen seen xel man dama bokk ci ñi ñi gëm ni fii ci senegal du ñépp nag am na ci ñoo xam ne dañu intègre am jikko yu baax a baax a baax mm-hmm. ragal yàlla lool te xam ni ëllëg dina taxaw ba tax lu ñu d'accordul wane ni d'accorduñu ci waaye am na ñoo xam ni nag lu ñu leen indil rek ñu ànd ceeg moom def leen ndànk mm-hmm. delloo si leen seen xel mm-hmm. delloo si leen seen sago mm-hmm. beneen bi ci des moo di le peuple sénégalais ñoom laay waxanteel di di leen di leen di leen massawu coono te di leen wax ni yàlla jeexul ndax dafa amoon waykatu arab bu yàgg bu waxoon ida shaabu yowman araada alxayaata fala budda an yastajiba alqadar fala budda lilleyli an yanjali fala budda lilqaydi an yantasir kon nag yéen le peuple sénégalais man maa ngi ànd ak yéen de tout cœur maa ngi ñaan xale yi nañu jéem a def lépp lu ñu mën a def ba dog mbuumu njaam ji ñu mu bëgg a takkalaat waaye ci façon boo xam ne mhm. ñëpp dinañu xam ni taxaw nañu def nañu li ñu war a def waaye ma leen di ñaan léeg-léeg nga romb koo xam ni dafa bokk ci sénégalais lam daan ndeysaan dajale ba am oto mhm. ëpp naa lakk kooku nañu jëflanteeg ñu ñu war a jëflanteel ba ñu xam ni réew mi santul fay santul sàll santul mbàkke santul si santul ay dara njaay senegal njaay lañu ñu wax ñun ñëpp ay doomu senegaal lañu ay doomu réew mi lañu lii daal laa ni woon dinaa ci sànni sama kàddu ñu delloo ci xel lii ëpp na ñaaw na am na ñoo xam ne ku leen yeewoon ci senegaal wax leen bii daañu ko weddi te man dama bokkoon ci ngeen baal ma ci ñu contrôle Ablaye Wade rëccu naa ko nag maa ngi koy jéggalu bu baax moom. yow jàpp nga ne Sénégal yi danañ toog ba guddi ñu rëccu Ablaye Wade. faute politique lan def. foot laa la wax politique bu mag bisu ren bii ñu taxaw nii incha allah bu dee déwén dañu xam ni danañu xam ni def nañ foot bu rëy. nee am naa lu ma naqari trop. nee ndax dama yaakaaroon ne. su ma fi jógee nee su ma fi jógee jox réew mi nit. kooka day avancé. nee kooka day avancé. bu nee bu toogee ba am difficulté ñëw ni ma am naa difficulté. nee ma jàppale ko. nee man lool laa yaakaaroon ne rek. nee lool mooy continuité état. da ngay continue liggéey ba yem si keneen ñëw. nee jël foofu. ne ngir avancé. nee man bañ ma ko woon a dimbale. keroog ba may génn pale wax naa ko ko. ñaanal naa ko. nee mu dëddu ma. ma. nee di ma jéem a toroxal. waaye yàlla danañu atte